jërë ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel 24actu point com ñu dellusiwaat suñuy actu people yi nag ñu daal di koy tàmbalee si internet bi nga xam si ne moo di Sénégal mu daal di fësal nag benn vidéo boo xam si ne président Macky Sall mi ngi ci doon julli gannaaw bu mu nekkee foofee ca soxnaam foofa ci ak bër maanaam ci ak vacances vidéo boobu nag wër na internet bi ñu daal di dem fi nga xam ne moo di VIP people moom nag mu daal di fësal nag ki nga xam ne moo di ki nga xam ne moo di Eva ak Pod mi nekk ci série Pod et Marichou ñuy fësal nag trophée d'or YouTube boo xam ne nag ñoo ko njëkk a jël ci Afrique sow jant trophée boobu nag dañ ko jagleel seen YouTube yi nga xam ne seen i abonnement toll na ci 1 million moro Marodi nag am lu toll ci 1 million 250 ci ay abonnement loolee nag ñu ngi ko am ci diiru juróom-ñaari at am yeneen i mbir yu YouTube doon séddale yu ci mel ne trophée d'argent ñu jagleel ko ñi nga xam ne am nañ 100000 ci ay abonnement trophée diamant bi nag ñu jagleel ko ñi nga xam ne am nañ 10 millions ci ay abonnement ñu daal di dem fi nga xam si ne moo di Feeling Dakar ñoom nag ñu daal feesal photo PADF Pape Djibril Fall mu taxaw nag ci kanamu tableau bi jàpp ay gëtam mel ne kuy jooy gannaaw nag lu yàggul dara moom journaliste bi bu mu ñëwee ci TFM mu mel ne nit ñi dañ koy gën a bëgg lool rawatina nag xalaat yu rafet yi muy indi ci émission bi di jàkkaarloo bi ñu invité woon ko nag ci benn école muy gën a jox xale yi ay conseils te di leen gën a ñaax pour ñu gën a fonk seen waajur yi te loole nag ca la tàmbalee ci ay ranxooñam mu mel ne lu mu mënta tëye ñu daal di koy daaneele ci ne moo di Gigi waykat ci a génnee ci li mu sol mu mel ne nag di mujj di leeral di xamle ne nit ñi lañ yaakaar ne woon moom la sol solul li mel noonu jërë ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel 24actu point com loolu la leen indiloon ci actu yi jërë ngeen jëf